sama paat sama paat sama paat ci lingaari baay daam waat naa ni lii daal assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Ahmadou Kara Sylla jaamub Serigne Touba Xaadim Rasool Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Serigne Cheikh Sylla ak Serigne Massamba Seck ñi fi jël kàddu yépp maa ngi leen sant di leen gërëm di dugal ci biir nuyoo bi Adja Sukay Diop sama taalibe sama xarit di leen yëgal ne leen Modou Kara la mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di sant noru woon a wax nag di tudd gaa yi waaye maam Thierno dafa tax dinaa ci baamu ay mbir maam na Diagne dégg naa li nga wax loolooy dëgg président de la république ak premier ministre ak ñiy wut réew mi li nu yor ñun ñii ñoom yoruñu ko li nu amit amuñu ko ndax biñ tàmbaleegul politique am na ci ñu bari ñoo xam ne amuñu oto bu baax amuñu kër gu baax politique lañ def rek sensé nun nag duñ sensé mukk li nu am waxtu bu ne day yokk guddi ak bëccëg Abdoulaye wàdd mi nga xam ne sama baay la di sama xarit ma bokk ci ñi ko fal ñu yàgg lool toog nan xolam sedd ci man mu ne ma waxal loo bëgg ma defal la ko ma ne ko li ma bëgg ci Serigne Touba yaakaar te defal na ma ko ba noppi amaan nan jataay boo xam ne Alaaji Seex Siise président mii fekk na ko Ablaye Wade ne ma waxal loo bëgg sa baay defal la ko mu ne ko li ma bëgg lépp dangaa ngaa fekk Serigne Touba defal ma ko ba noppi kon ku defee ne Serigne Modou Kara Sylla dafa bëgg ci keneen dara ab dof nga ñoom seeni jikko rek lañuy ñuy di ko jox keneen waaye liñ bëgg du mën a am de Serigne si noppi ci politique bii kenn du ko def lan moo tax ñoom nag ni ñuy politique noonu duñ leen ci fekk si. waaye su fekkee politique wax sa xalaat rekk la ci sa réew duñ ko ba ñoom nag luñ mën a def ban ba ko danañ ko def waaye noo bañ ñoom de sëriñ bi wax ñu toj lexam jël wax ja yàq cab deram kuy dox di rubu tubayam ku muy digal danga gëlëm loolu mooy dëgg dama bëgg nit ñi xam ne mbooloo mu la bëgg lool ñëw fopp seen bopp jox la ne la jébbal naa laa sama bopp àdduna ak alaaxira nga téyal ko addunaam téyal ko alaaxira benn waaye jóge ca àll ba ñëw ne damaa soxla réew mi wax ak say taalibe ñu fal ko ah waaye seen adduna ak seen alaaxira boo leen joxut seen àq du ma wax ñoom ñooy wax wala may wax ku war a wax man mi leen moom maa leen di waxal dama leen di waxal bu baax te duma nopp li ma jaaxal nag dama yërëm président de la république ndax li tax ma yërëm ko ay nit a ko jage yoo xam ne bëgguñu nit ku baax ku baax koo xam ne it mi ngi wax danañ fexe ba yàq digganteem ak Macky Sall ci suñ biir bokk yi sax am na ci ci suñ biir bokk yi seex yi ak sëriñ si sax am na ci du ñëpp nag waaye dama bëgg ñu xam ne nun du nangu ñuy tabax ay kër yi milliards nun soxlawuñu ay kër ay tëli lan soxla kese tëli ñu ne duñ ñu ko jox ba noppi ne duñ wax dañuy wax ba noppi dañuy bañ te dañuy bañ ba nin war a bañ ñépp nu baje ko ne te duñ leen baal tey du duñ leen baal ëllëg man nañoo wax ñoom ñu mën a wax duñ mën a wax dañoo gën a mën a wax dama ne lin mën a faye ñii daal mooy niñ ñu def nañ leen ko def diwaan moom dañ leen a bëgg dañoo bëggul diwaan dañoo bañ diwaan bañ diwaan nee nañ diwaan mënuñ leen a fal mënuñ leen a foll loolu lañu wax diwaan amuñu soxla ci diwaan nee na danañ falu te diwaan du leen fal waaw loolu la léegi nag yéen lu ngeen tuuti tuuti xanaa yéen moom seen bopp ak seen kart wi bu leen leen ko jox rek même buñ faloo nañ xam ne nun du falunu leen loolu xanaa sañ nañ ko naru ci woon a wax waaye <laughs> maam Thierno Diagne mii moo tax ma wax ci ndax li ko naqari naqari na taalibe yépp ñoom dañoo amul xam-xam yow yaa ngi def loo xam ne dafa naqari benn nit nga wax loo xam ne mbooloo la naqari nga ne da bëggu nit feeg ñu ngi nuy xas di gën a ñàkk nit ñi te nu lu waaye wax nag nu delloo la ndax ay baay faal la nu dun ay sëriñ ay baay faal man daal damaa xam ne nit koo xam ne ay impom ak impoy taalibeem ci ngay fay say fonctionnaire sa caisse noire gi ngay faja say soxla sunuy impôt la ak sunuy impôt yu taalibe say voyage yi ngay tukki sunuy impôt la ak sunuy impôt yu taalibe amuñu àq nag lu la neex def ci sunu alal liñ bëgg doonu ko defal nu noppi teg waaye ban façon nit la dama ne woon gone réew yi ku ñu fal ba tax nga daa di woyofal sëriñ si yaa gàtt xel nan dema ba ca kanam xam ngeen sëriñ Cheikh si la diwaan ku muy sa way jur boo ragalee foo ko doon ne <laughs> moo njëkk nekk nekk PDS mu PDS bi kenn ñi mu wut ànd ak kenn Ablaye Wade sama baay moo ko moo ko jàppale man may ragal ah, man opposition sax moo ma dàqal waaye ndegam ñii moom topp nañ leen Macky sàll ba mu fi toogee ba nege ni moom la ñuy wateel dëgg la wala du dëgg wax leen ba mu toogee Sénégal ba nege ni nekkagul président ba ni mu ko nekkee ba fii ma toog di wax ak yéen moom lañuy ñuy wateel ñu bëgg noo defi mbaam nañ leen ba lu ñu man nag nañ ko def nu itam lu man nañ ko def nan ñaan te nañ leen wan ginnaaw ngeen may ma nag ma dugg ci waxtaan wi si la ngaari baay daam naa ni lii daal